déggul wakaam xam nga wakaam ku déggul ngor tamit xam nga ngoor ñoom ñaar ñooñu laa mën a wax parce que ñoo ñu leen lésé donc mënutoo comprendre quoi parce que li tax mënutoo comprendre démb dem neen fa léegi da ngay gis ay haut grade ñoom ñooy garde fi nga xamante ne ñoo koy morcelé te defe naa ne dans l'armée patron yi ñoom ñoo war a wax sukk yi day leen garder mais léegi da ngay gis ñiy gradé ñoom ñooy dem. di garde fi nga xamante ne mooy morcellement bi ba dem neen fa fekk fa benn commandant mu ne fan ngeen jëm si loo xamante ne suñuy maama fa daan bay den fa miin comme ndox am nañ droit dugg foofu xool lu fa ne parce que li tax ñuy bay ñu dugg fa dafa am loo xamante ne jubadi gu mag moo fa nekk te se neen fax ay ministre te ce kii est grave c'est ça Camamène c'était comme ça feneen c'était comme ça pourquoi les gradés ñoom ñooy garder foofu loolu fu mu tegu léegi ñu jël yoof jox ko vingt hectares les ngor les wakaam mais ñun du ñuy bombongu kenn ku jot rek yéey nu nii ku nu déggul tim xam nga nu ñun li ñuy wax dañuy tàmbali parce que nit da ngay tàmbali si diplomatie dafa am xam foo xam ne bu buñ fa tolloo bu dee ba su dee jotee ku deewul doo gor te foofu leen tollu li tax ñuy wax yépp nit nag da ngay deme xel deme xel mooy que ne ñun li ñu war ñi ngi koy def ñi ngi koy def ci diplomatie nag mais nag dafa am foo xam ne buñ fa tolloo ñun dañuy maye sunu ruu parce que amul kenn kuy dee di dekki parce que trop c'est trop wakaam amul estaat amul dara y'a rien di tout dëkkuwaay bi xat na ñaata cité moo fi ne da nga fay dugg fekk fa lébu amul wala nga dugg a fekk koo xam ne doomu wakaam la amul parce que tamit suba jar na bàyyi xel man duma jox sax importance Diop Sarr parce que tamit nit da nga war a gore moom ba muy campagne dañ na yoof doo fa campagne mu ñëw fii bokk ci convoi wu wakaam fii la doon campagne di año ndox nit ñi di reeru ndox nit ñi te fierté la ñu naan ministre bi yoof la dëkk moo représenté collectivité yépp dafa am solo parce que da kay woote bu demee présence danaan yoof wakaam ngor yoof maa leen gérer donc pourquoi bu la joxee benn code sax bu dee 20 war nga ne xaaral ma tas ka ñaar ñii mos ñii mos noon na def loolu mais boo jëlee rek téye dañ koy rafetlu parce que suñuy mbokk lañ koy jox mais doxalin bi moo rafetul te dañ ne sur le 44 07 les deux tiers restent demeurent à la collectivité de Wakam parce que bi ñuy cent en 1947 dañ fay yoof dañ ko suspensionné jox ko 600000 jox ngor 600000 wakaam na moom buñ ko jox bu ñuy delloo seen suuf nañ ko ko delloo même ba si biir tubaab bi mi naan lee wakaam waa de mauvaise foi parce que boobu mi ngi ñuy bëgg a jël li nga xamante ne ñoo ko moom ñu bañ donc nag bu mënee jox ñi nga xam ne dañ leen suspensionné woon léegi wakaam nu muy def ngortim nu muy def te et mënatoo comprendre da ngay jékki-jékki rek ñuy puus di puus génnee fleurette yi rek jékki-jékki rek bâtiment bi jóg loolu dun ko bàyyi mu dem diplomatie nag la tàmbalee def nañ ko fii fii si mbàkk yu fay suñuy kilifa génn na bàyyi leen ñu bàyyi looloo tax ñu bàyyi parce que nit day dégg waxu kilifa mais nag bii sànni tàccu la parce que suñuy kilifa am na foo xamante ne tollu neen fa te am na lu nu dee dafa am loo xamante ne xel nangu ka li ñuy coow fii la nekk wakaam kenn ëppalewu si lébu yi mais xeexunu ay xeexu tukulóor wala ma demba loolu dañ ko dépassé mais défi défin bi moo rafetul parce que le président de la république Macky Sall moo taxaw fii si campagne bi dégg ngeen ko na suuf si dañ ko caxat-caxatee moom bu faloo dina delloo nit ñi seeni suuf nanu delloo suñu suuf comme ñun suuf leen am demunu fuuta di fa xëccoo ay nag wala demunu feneen di fa xëccoo leneen parce que dëkkuwaay bi moo xat dëkkuwaay bu xatee nag danga leen da nga ñuy jël comme considération mais mënoo jël benn nit mu nekk promoteur nga jël ay hectare hectare may ka ñu naan diw milliardaire la ñi ñi nga bàyyi leen fii ñuy souffrir foofu dafa amoon ñu fa doon bay am ñu fa nekkoon donc dina rafet sax nga delloo leen benn ñax bu tuuti boo xam ne ne ñoo ko moom dafa am solo li nuy wax yëpp dañ naan lébu yi dañuy wax waxu suuf waxu suuf mais lébu yi demuñu fenn di wax waxi jàmbur si li nu tette rek loolu la ñuy kaas donc président de la république li ma lay ñaan mooy que nga jox ngor seen wàlla jox wakaam seen wàlla jàmm na ñooy. suñu taxawaay président de la république Macky Sall xam na ko bu baax à chaque fois qu'il passe à Wakam bu ñu sollicité pour. son sort en tant que politique dañ ko jàppale deux élections yëpp ba mu jàll beneen bi il faut ñu interpeller le président de la république par rapport au ministre Diouf Sarr y a eu des ñu waroon a def le conseil des collectivités territoriales man mi nga xamante ne sax je fait partie un peu de la basse classe politique de Wakam il m'appelait pour wax ma ne Babacar jàppale leen ñu pour que ñu gañe conseil bi il me demandait même de venir chez moi ak ñun ni ñu mel wakaam rëyuñu soxlawuñu nit pour di la defal dañ ko def ak cœur ouvert ba tous les conseils ont voté pour le président de la république présidentielle yëpp yi ñu ko taxawal fii waxam dafa taxawal jàppale président de la république donc nag war nañ reconnaissant envers la population de Ouakam parce que lépp lu mu ñu sollicité defal nañ ko ko Macky aussi c'est c'est un dirigeant boo xamante ne bii li mu soxla mooy kuy wax mu di la dékk am na fu ñu jaar ak moom mu def lu rafet à travers un ministre ex ministre Mame Mbaye Niang li mu ñu defal du loo du lu ñuy toog di wax sax ci télé yi mais lu mu gàtt gàtt am na lu mu ñu defal loo xamante ne lii dañ ko ciy sant bu baax donc nag président sa taxawaay sa diggante Wakaam ak les trois communes yi nga xamante ne mooy Ngor ak Yoof injustice bi fi am lañ bëgg nga réparer ko parce que mënuñu concevoir ñu réquisitionner ay terre yoo xamante ne ay nit ñoo ko moom pour le bien de tout le monde ñu nangu cédé bu ñu demee ba tubaab yi léegi bàyyi Sénégal ñëw continuer ba jëlee fi aéroport bi yóbbu ko jas war a jëlaat aéroport bi dañu bu ñuy restituer dañ war a xool ñiy joxoon ñu seet nañ lañ leen di def ba pare doo ko jox keneen tey jii boo duggee si biir aéroport bi mais tu es ébahi sa xol dafay jéex lan moo koy jeexal yan nit lañ ko jox fan la ñu jógee ani ñi ko seen maam doon bay ani ñi ko seen maam doon bay est-ce qu'ils sont considérés dans tout ça c'est décevant c'est décevant dafa ñaaw da ngay jóge ba fongale mi tu as ta part dans cet aéroport dangay jóge fu nekk tu as ta part dans cet aéroport ani ñi ko joxe woon Wakaam aussi de bonne fois bëggul woon sax jaay ni ak ngorom dañ ko laaj mu ne jël leen bu ngeen demee ba soxlaatu leen delloo leen ma ah c'est parce que aujourd'hui amuñu ku ñu waxal amuñu ku ñu waxal moo tax ñu jox yoof bàyyi Wakaam au no de quoi boo demee dans les archives et les textes tout le monde verra que ne Wakaam masul laal dërëm ci réquisition bi donc de droit li nga xamante ne ñoo ko moom nañu ko delloo le plus rapidement possible ñu ngi interpeller nag le président de la république wakaam ku ko xam-xam ne ne dañuy tuumaal si coow lu nekk on ne veut pas de ça et notre démarche dépassé nañ génn si dëkk bi di di yëngal walla di def quoi que ce soit contexte dëkk bi sax mayuñu ko ba ñuy def affaire yi animosité yooyu donc nag dañuy démarcher le plus passivement possible ak avec une grande sagesse en respectant le président de la république et ses autorités na waxaa ñi nga xamante ne ñoo yore aéroport bi di ko doxal na waxaa ñi nga xamante ne ñoo yore aéroport bi pour jox ku nekk wàllaam toujours dañu léegi beneen bi regardez moi bi ñuy dem lors des élections législatives lan moo xew waxam Diouf Sarr était tout le temps à Wakam pour solliciter ñu ay ay ay ay ay bras on l'a appuyé jàppale le président de la république ba mu fal ses lan la ñu promettre woon dinañu defaral suñu terrain ñëw simuler ay travaux ba benn instant gisatuñu terrain gisatuñu sax chantier ah jël lépp yóbbu Yoff et ailleurs c'est parce qu'on n'est pas bien représenté mais quand même c'est une population très intelligente Ouakam très patient aussi très observateur les politiciens yi fi nekk ils ont beaucoup de stratégies c'est de grands stratèges stratèges en commençant par le maire le maire il a toujours soutenu le président de la République lépp lu mu sollicité daf koy defal et il fait partie des interlocuteurs de cette commune parce que c'est le premier magistrat les gars sont là avec leur sagesse ak seen noblesse lépp leen président sollicité ñu def ko bu ñu waxee xale yi rek xale yi topp seen ginnaaw c'est parce que loolu lañ aadawoo rakk topp mag doom topp baay et pourtant on est des intellectuels on est des personnes très réfléchies on pouvait faire autrement opposé wu di def lu nekk lu ñu neex bu boobaa dañuy assumer rek mais not démarche nekkul si loolu pour lañ l'instant li ñuy demander mooy pour être bref président de la république waxalaak say autorité waxalaak say ministre waxalaak say directeur ñu delloo wakaam li mu moom suñuy kilifa toog nañ fi y a deux semaines de cela wax ba tey kenn oowu leen ñoom ñoo ñu tënkoon ñoom digaluñu li ñuy def nii de wax nañ lu ne pour ñu bañ def point de presse mais dañ koy def parce que ñoom bu ñu waxee wax wax ba ba xamatuñ fu ñu jëm bañ def point dafa jot nag ñun sëriñ ñu taxaw dafa jot ñun sëriñ ñu jël li ñu moom aéroport bii nii du demee nii yeneen yi demee kon encore une fois président dañ nekk ci période pandémie ñu waroon wax leneen. wax nu ñuy def ba Covid bi jógee fi boobu ba léegi nii ñu ngi resté à notre calme kon bu leen ñu génnee si loolu président li wakaam moom jox ko wakaam li wakaam moom ñun xaaratuñ si Diouf Sarr on a nos autorités coutumières de même que administrative Diouf Sarr en tant que maire maire de Yoff la jëlee 20 hectares soit disant 557 parcelles pour waa Yoff kon nga ngalaam ñun ñi nga xamante ne ñun deux tiers ñoo ko moom duñ ko bàyyi muy nax saay on a des infrastructures on a besoin des équipements kon président yaakaar naa ne suñu wax ji nii du tàbbi si nopp ku tëx di ñu dégg te d'ici peu ñu ngi xaar sa réaction on a nos nga recevoir leen wax ñoom li waxaam moom nga delloo leen